li ma gis mu gën ma naqari tey mooy am na parti opposition yoo xam ni dugg nañ ci loolu des yoo xam ne nee nañu sénégalais leen tax a jóg yore seen xaalis kenn xamul fu ñu jëlee xaalis bi waaw d'ailleurs man je euh, euh, euh, Macky Sall ànduma ak moom mais c'est le président de la république ba ba léegi bu ma doon moom ku ni président la dinaa seet foo jëlee xaalis nga andil ma justification xaalis bi ah oui ça c'est normal nga def déclaration sur l'honneur patrimoine bi nga am parce que aujourd'hui ñi am xaalis ñoo jaxasee dëkk bi foo dem ñun la ah man boo ma joxul nangam du mën a ànd ak yow yaakaaroon naa ni Sénégal weesu na fii yaakaaroon naa ni Sénégal weesu na ñuy dugg ci kër naan jox ma sa carte d'identité junne ngi nii dañ koo defa def ba def ko ci man sama kër militan sama kër militant la ñu dugg Chimère Ndiaye mu ngi may dégg maga ma fi këram lañu ñu dugg ne soxnaam dinañ la jox nangam nga doon sa carte mu ne leen man sama jëkkër candidat la waaw pour vous dire <laughs> situation bi xew aujourd'hui Sénégal moo tax ma ni Sénégal yi nañu góor góorgóorlu nañu delsi ci ngor bu ñu bëggee Sénégal defaru